tey dañu daje fii pour euh, maanaam xaatim li nga xam ne mooy renouvellement contrat bi nga xam ne moom la ñu seq ak Kirène contrat Kirène dafa nekk loo xam ne lu yàgg yàgg la ci euh, maanaam histoire euh, football sénégalais ñu yàgg jàppale yàgg am taxawaay si football bi mun nañ jàpp ne bokk na si ñaar wala ñetti sociétés yi nga xam ne ñoo gën a am taxawaay ci football gunge football sénégalais ay at at tey ñu nag eesal contrat bi ci ñaari at yi ñu jëm mu nekk maanaam. àndandoo buy takku bu ñuy may ñu def yeneen jéego ci yi fekk si yi ñu jot a def pour mën a maanaam euh, am ndam fii ci euh, Afrique ak ci àdduna si yëpp euh, contrat boobu dina ëmb coupe d'Afrique bii di ñëw dina ëmb coupe du monde bi te am nañu yaakaar ànd ak kiren coupe du monde Qatar pour Sénégal defaat fa xëj na ay maanaam jéego ak ay résultats yoo xam ne yu mujj ayib la bu may wax ab tamit ci mbir contrat boobu damay wax rek ne diiru ñaari at la mais tamit CREN euh, dafa jël koom bu gën a takku dugal ko ci li nga xam ne mooy contrat bi ba nga xam ne at bu nekk dinañu jébbal li nga xam ne mu ngi toll ci koom cinquante millions 2021 ak 2022 yëpp ak ay prime yoo xam ne boo qualifié wala boo gañee ñoom dinañ la ko tegal rax ci dolli aussi lépp li nga xam ne ay jumtukaay la ci ay produits muy ndox ak yeneen ay jus yooyu dañ ko gën a dëgëral Euh, Tay amatul équipe nationale bu Sénégal bo xamné ne buy football day jënd ndox wala di jënd ay boissons pour ñun comme suñu adversaires yi euh, li gëna am nak solo ci contrat bi ñu signé moy euh, Kirène dafa duggal biir Sénégal partenaire bo xamné aduna àdduna si ñu koy ragné mu nekk koo sponsor yi sport mondial la ak football particulièrement muy Pepsi bu ko sétane champion league c'est aussi une compétition yi une activité sportive ci monde bi donc Sénégal ngir sommes en ñu gëreum leen ci Nous ci euh, donc le DG Alex Alcantara ak équipe am ak Sénégal dina dem fu compétition yi ñu jëm ndam bi dinañu ko fi